أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين laqin lisaani waxlulan minhu loqat wajaalhu zakiran wa shakiran abad wajaal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen jéggulu te di leen jéggal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñuy dikkaat ak yéen di ànd ak yéen ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot te ñu nekk ak yéen ci téereb sëriñ bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde Munawwiru Sudur ñu tolloon ci bunt bi nga xam ne ci lañu sëriñ bi di leeral noonu doomu aadama yi nga xam ne mooy nooni doomu aadama yu màgg yi nga xam ne doomu aadama bu ne war naa fexey ba ji ma not noon yooyu ngir ci not gi nga xam ne moom lay not noon yooyu ci lay mën a jëfe bu baax ndigali suñu borom yi waaye it ci lay mën a moytoo bu baax terey suñu borom yi mu mel ni suñu bind bi mujj ñi ngi taxawoon ci bunt boobu ci bayit bi nga xam ne ci la sëriñ bi doon wax naan na nga jaxasoo ak aji gëm yàlla ji ci dimbalante maanaam booy jaxasoo aji gëm yàlla ji na nga jaxasoo ak moom ci fas yéene dimbalante ak moom waaye bul jaxasoo ak moom ci ak mooy yàlla wala ak noono wala ay bàkkaar kon boo jaxasoo ak aji gëm yàlla ji li nga xam ne moo war a tax ngay jaxasoo ak moom mooy jaxasoo ak moom ngir dimbalante ak moom ci topp yàlla waaye ngir dimbalante ak moom ci jëfe ndigal waaye ngir dimbalante ak moom ci sori lépp loo xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala di moytandikuloo sëriñ bi di continuer rek di wax wa xaalitil muslima na nga jaxasoo ak aji gëm ji ba tey al muslim wal muhsina ak aji rafetal ji fii ibadati lazi ci jaamu ka nga xam ne xabaa xéewale ne bil kana fi ci ay kaaraange sëriñ bi radiyallahu anhu ne na nga jaxasoo ak ki nga xam ne mooy jullit bi ba tey jaxasoo it ak ki nga xam ne moo di aji rafetal ji ba tey ci lan ngay jaxasoo ak ñoom ci dimbalante ci jaamu yàlla waaye ci dimbalante ci topp yàlla mi nga xam ne moom mooy xéewale ku ko neex kaaraangeem waaye moom mooy aar ku ko neex ci jëmmi boppam kon foofu day mel ni li nga xam ne moo tënk lislaam muy iman ak islaam ak ihsaan moom lañu fi sëriñ bi di digal képp koo xam ne moom ngay jaxasoo rek na nga jaxasoo ak moom ci ñett yooyu mooy na nga jaxasoo ak moom ci gëm goo xam ne gëm na ko yàlla te wóolu ko wala nga jaxasoo ak moom ci jullit bi nga xam ne doon na ko wala nga jaxasoo ak moom ci rafetal gi nga xam ne moom lay rafetal te moo di al ihsaan li ñuy wax ne mooy nit ki ni nga xam ne noonu lay jaamoo yàlla te di ko sellal waaye bañ koo bokkaale ak dara mu mel nii al mu'min nag bu ñu ko waxee moom ak muslim dañoo xaw a jegeñee waaye xaw nañoo am tuuti ak teqale ngir ne ponk yi nga xam ne moom la nit ki di gëm ñu ne ko ak jullit nga bokkul ak ponk yi nga xam ne moom ngay gëm ñu ne kii mu'min la kon muslim moom saa bu nit ki tuddee ñaari baati seede yi di julli di jàpp aka woor aka joxe asaka ak aji màkk ci bu ko manee yooyu nga xam ne mooy ponk lislaam yi saa boo xamee ni nit ki mi ngi koy taxaw di ko def bu boobaa ñu ne ah kii kat mën nañoo tudde ne ab jullit la waaye bala ñoo wax mu'min la faw li nga xam ne mooy xaybiyaat yi yi nga xam ne dañu koy dégg te daanaka mën nañoo wax ne duñu ko gis faw yooyee moom daf koy gëm lu mel ni malaaka yi lu mel ni gëm yonent yi nga xam ne jamondoonte ñu ak ñoom fekkee ñu leen lu mel ni di gëm dogal yi nga xam ne mooy wàcc ci suñu kaw yooyu yëpp gëm ak pas-pas bu dëgër mooy tax doomu aadama bi gëm ko kon day mel ni li nga xam ne moo di al muslim ak al mu'min am na ak teqale gu sew a sew ginnaaw bi nga xamee ne nag jaxasoo nga ak ñooñu ñëpp la nga war a jaxasoo ak ñoom mooy lan mooy ci jaamu suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye ci jaamu yàlla mi nga xam ne képp lépp lu doomu aadama am ci kaaraange lépp lu doomu aadama am ci xéewal suñu borom bi subhaanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo ko xéewale sëriñ bi di wax ne wa xaysuma xaalabta foofi jaxasoo ak man ka nga xam ne araada namm na ayban ayib fala taxab bul may loxoo ñeel ko almuraada càkkuteefam sëriñ bi ne na saa boo fi xamee ne jaxasoo nga ak doomu aadama bay doomu aadama day nga jaxasoo ak moom ci jaxasoo gi nga jaxasoo ak moom mu nga xam ne kii de ay ayiba ngi ci moom muy ñàkka nu ngoo topp suñu borom bi subhanahu wa taala mi ngi ci moom wala di mooy suñu borom bi subhanahu wa taala mi ngi ci moom wala di gàkkal derub nit mi ngi ci moom wala di sikkal ay nit mi ngi ci moom wala jëpp jenn jikko joo xam ne lislaam du ko rafetlu mi ngi ci moom nee na saa boo fi àndee koo xam ne ayib yu mel noonu mi ngi ci moom nee na bul ko may la muy sàkku mukk la muy sàkku mooy lan mooy ngay ànd ak moom ngir mu man la xëcc ca la nga xam ne ca la nekk kon ku mel noonu saa boo saa bu la biree ne kii jikko yu mel noonu la jikko woo nga xam ne nungut a topp suñu borom jikko yooyu nga wax yëpp yu ñu wax yëpp mu mel ni dafa am jikko yu mu ci amee bu boobaa kooku moom lay gën mooy nga fexe ba tàqalikoo ak moom moo tax mu tekke ne wa faarixil xaflata na nga tàqalikook aji sàggan ji xaysuma xifta foofi ragale allahin iblis ma nga xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf ko rëbb fa innahu naka moom de yakuffuhu dina la fegal ayu iblis kon almuin suñu borom mi nga xam ne moom la ñu jublu ci aajo te moom la ñuy dimmandikoo ci lépp loo xam ne moom la ñuy sàkku kon ne na saa boo fi gisee ku mel noonu nga xam ne ay ayu bi kese la taqool di ko def ne na la gën ci yow de kookee de na nga xam ne nit ku sàggan la waaye na nga xam ne nit ku bàyyiwul xel li suñu borom subhanahu wa taala di digle la waaye nit la koo xam ne iblis moo taxoo ak moom kon bu fekkee ne bëgg ngaa tàqalikoo ak iblis bu yeboo jëmm joojee nga fexey tàqalikoo ak moom te la lay tàqale ak moom nag mooy nga fexey jublu ci li nga xam ne moom la suñu borom bi digle waaye li suñu borom bi aaye nga koy moytandiku bu baax te ca la nga xam ne moom la lay xëcc moom di la ci yóbbu mu di ak njub ak ak mooy ak i bàkkaar yooyu yëpp nga koy daw waaye di fexey di sori ak ab jataayam ndax sëriñ bi da doon wax ne na ngeen di moytu jataay way texee di te ñi nga xam ne dañoo sàggan ci tudd yàlla ñi nga xam ne dañoo sàggan ci li nga xam ne mooy jëfe ndigal yàlla yi ñi nga xam ne dañoo sàggan ci li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle ñu koy def ñooñu ñëpp day mel ni iblis moo fëkk seen seenum xel su ko defee nag bu fekkee ne bëgg nga tàqalikoo ak jataay way texee di jëmm yu mel noonu faw nga tàqalikoo ak ñoom waaye faw nga sore ak ñoom moo tax sëriñ bi ne kun na nga nekk zajtihaadin di boroomu góorgóorlu zikran ci tudd tudd lillahi ñeel yàlla tuk fa ko kon deef na la fegal asayaatina saytaane wa kulla laahin ak lépp loo xam ne mooy xeeti fo ne na kon bu fekkee ne bëgg nga mucc day na nga góorgóorlu bu baax a baax na nga góorgóorlu ci lan ngay góorgóorlu ci tudd suñu borom bi subhanahu wa taala ndax suñu borom bi subhanahu wa taala tudd ko ci la xolub doomu aadama bi di teeye waaye ci la nit ki di dale te it ñi nga xam ne ñooy tudd suñu borom bi subhanahu wa taala suñu borom tàgg na leen lu baree baree bari ci alquran loolu war a tax nit ki bari lu muy tudd yàlla ngir lan ngir def ko mu di ak jaamu yàlla waaye ngir def ko muy loo xam ne day feccile waxtoom waaye muy mu koy def ngir lan ngir loo xam ne dina ci mën a fekk saytaane mi nga xam ne ngànnaay li nga xam ne moo ko gën a mën a dàq mooy lan mooy tudd suñu borom bi subhanahu wa taala kon nit ki su fekkee ne bëgg naa tàqalikoo ak saytaane bëgg naa sori lépp loo xam ne moo nuroo ak saytaane na sax di tudd suñu borom bi subhanahu wa taala na tax na sax di jéggulu suñu borom bi subhanahu wa taala nay baril ay salaatu ala nabi ci aw làmmiñam nay baril ay istighfar ci aw làmmiñam nay baril ay yeneen yoo xam ne jëf yu baax la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo gërëm li lu ko mel ni jàng alquran lu ko mel ni zikar lu ko mel ni jàng xasida yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne tudd yàlla dong la feese dell kon nit ki su fekkee ne bëgg naa mucc ci iblis moom mu nga xam ne fu nit ki di nekk mu koy topp di ko bëgg a dox digganteem ak jaamu yàlla soo ci bëggee mucc kon na nga bari looy tudd yàlla te tudd yàlla yooyu ñu ci tudd yépp ay anam la yoo xam ne nit ki mën na koo jëfandikoo ngir tudd yàlla moo tax sëriñ bi ne wasrif na nga soppi xawaaka sa bànneex li rida mawlaaka jëm ci sa ngërëmul sa boroom jëm ci sa di ngërëmul kilifa washkuruhu te nga sant ko moom suñu borom subhanahu wa taala lil fadli ngir ngëneel allazi la nga xam ne awlaaka méng na la ko nee na kon na nga soppi lépp loo xam ne mooy sa bànneexu bakkan lépp loo xam ne moom nga bëgg nee na su fekkee ne dëppoowul ak bëggug sa borom bi subhanahu wa taala nee na loolee na nga wëlbati sa bakkan na nga wëlbati sa bànneexu bakkan jëm ci la nga xam ne ca la la suñu borom subhanahu wa taala di gërëme te loolu du lenn lu du topp topp suñu borom subhanahu wa taala ci ndigal yi waaye it di bàyyi tere yi nga xam ne moom la tere ginnaaw loola nag nga teg ca di sant suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo la xéewale xéewal goo xam ne lépp lu jàppandi ci yow ci ak dund suñu borom subhanahu wa taala moo la ko xéewale ndax li nga xam ne moo lay dimbali ci nga mën a dund ci àdduna lépp loolee suñu borom subhanahu wa taala defal na la ko xéewale na la ko kon loolu li ci waroon mooy nit ki wëlbatiku xool xéewal yooyee gis xéewal yooyu nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala defal mu jël léppam jëmale ko ci yàlla ngir lan ngir sante ko ko ca xéewal yi nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala defal ndax suñu borom subhanahu wa taala mooy wax ci alquran ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis waxoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xéewal yi nga xam ne moom la la suñu borom bi subhanahu wa taala defal dee ko ci sant kon sant xéewal dafa bokk ci ak jaamu yàlla waaye dafa bokk ci loo xam ne jullit bi daf ko war a saxal te muy loo xam ne it nit ki mën na koo def ci aw làmmiñam waaye ci ay cër yi itam nit ki mën na cee sant xéewal yi nga xam ne moom la ko suñu borom bi subhanahu wa taala digal moom la moom la ko suñu borom bi subhanahu wa taala defal mën na cee sant yàlla ci xéewal yi nga xam ne moom la moom moom la ko defal ngir suñu borom bi subhanahu wa taala defal na la lan defal na la ay cër defal la am xel defal la mbir yu bëree bëree bëri yoo xam ne bu doonte nag moom mën naa am sa dund ci kaw suuf mën naa bañ a jàppandi moo tax sëriñ bi di wax ne awlaaka méng na la moom suñu borom bi subhanahu wa taala àqalan ci am xel wa jawaarixa ak ay cër bila xaslin ci lu dut wàcc bila xaslin ci lu dut wàcc fa faddala aqbila aqbila kon na nga nungu fa faqbal na nga nungu fadlahu ngëneelam bi shukrin ci ak sant moo tax kon mu ne awlaaka méng na la moom suñu borom subhanahu wa taala aqlan ci am xel wa jawaarixa ak ay cër bila xaslin ci lu dul di la wàcc faqbala kon na nga nungu fadlahu ngëneelam moom suñu borom subhanahu wa taala bi shukrin ci ak sant nee na suñu borom bi subhanahu wa taala moomu mooy ki nga xam ne moom moo la defal am xel ngay xelaat di xam lu baax ak lu bon di xelaat nan ngay yéwénale sa dunduk àdduna waaye it man caa jaare di xelaat nan ngay yéwénale sa dunduk ëllëg yawmal xiyaam kon suñu borom bi subhanahu wa taala mi la defal loolu nee na kon war ngaa nungu gëneel loolu nga xam ne moom la defal waaye di ko ci sant bu baax a baax a baax a baax waaye defal na la ay cër te cër yi benn cër bu ci ne am na yitte joo xam ne moom la ko moom moom la la ko suñu borom subhanahu wa taala bindale defal la ko muy nga man cee faj yitte yu bëree bëree bëri te yitte yooya daanaka yu ci bëree bëri da nga koy da nit nit ki nga xam ne dafa sàggan daf ci xaw a neenal ak jaamu yàlla wala daf ko ci xaw a ginnaawal te loolu bokkut ci li nga xam ne mooy sant xéewal yi la suñu borom subhanahu wa taala defal kon cër yi nga xam ne moom la la yàlla defal donte ne di nga ci jëfandikoo sa yittey bopp sa aajoy bopp yoo xam ne yu dagan la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala araamalu ko te it sibu ko waaye nag li nga xam ne moo di ak jaamu yàlla gi nga xam ne moo tax yàlla bind bindu ñu wàcce ñu fi cër yooyu nga xam ne moom la la defal war nga ko ci jaamu ba mu ba cër yëg ne yaa ngi ciy jaamu suñu borom subhanahu wa taala ci naka ci lépp loo xam ne moom la cër yi war a def comme ak jaamu yàlla lu ko mel ni bët yi la ñu ca waxante ginnaaw nga ciy xool lu neex suñu borom subhanahu wa taala loxo yi nga ciy jëf lu neex suñu borom bi subhanahu wa taala ak dëppale ko ak ndigalam yi tànk yi nga ciy dox di jëm fu ko neex xol bi nga fexey di ci di tudd yàlla ba sab xol miin ko yooyu yëpp nopp yi yooyu yëpp kon cër bu ci ne am na jaamu yàlla goo xam ne jagoo na ko goo xam ne boo ko defee man nga ci am gërëmul suñu borom subhanahu wa taala te it boo ko defee la bi firndeel mooy xéewal gi la suñu borom subhanahu wa taala jox xéewlu woo ko noonu rek bàyyi waaye yaa ngi koy xéewloo boole ceeg yaa ngi ciy sant suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo la ko jox moo tax mu ne wal taquli na nga wax alxayra aw yiw wasmut te nga noppi an siwaahu walif ludul aw yiw yasir kon da nga mujj maatax waahu la nga sopp lépp ridaahu muy ngërëmal suñu borom bi subhanahu wa taala ne na kon na nga na ngay wax aw yiw saw làmmiñ kon dudut aw yiw bu ko ci wax aw yiw mooy lan mooy man nga cee jàng alquran man nga cee tudd yàlla man nga cee jàng ay xasida man nga cee jubale mbokki jullit yu dëngoo yooyu yëpp man nga ko cee def ci loo xam ne aw yiw rek la lay jural waaye nag lépp loo xam ne moom ab safaan la lay jural ne na sa làmmiñ wooye bu ko ca bu ko ca tudd moo tax yonent bi doon wax ci xadis ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw li yasmut képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis penc na ngay wax aw yiw te noppi kon aw yiw rek lañ la digal nga wax ko saa boo waxee aw yiw ba pare jeneen wax joo xam ne daanaka amul solo lool te it mënoo caa amee tuyaaba waaye mën na laa jural ay bàkkaar ne na yooyu yëpp na nga ko moytandiku ndax loola la mu lay jural du doon loo xam ne lu la gënal lay doon mu ne wax xay suma kullimta foofi waxee bil fuduli ci ay caaxaan famil na nga jeng ilal afdali jëm ca la gën a baax lal mafduli bul jëm ca lañu la gënut maanaam saa boo xamee ne bëgg nga namm ngaa wax saa boo xamee ne am nga bëgg wax nee na bu boobaa booy wax na nga fexey di wax loo xam ne lu baax lay doon waaye bul wax ay caaxaan bul wax loo xam ne bu ëllëgee nga koy réccu waaye bul wax loo xam ne mën na laa indil ay bàkkaar ci sa diggante ak sa borom kon daal foofu li ñu fi bëgg a wax rek mooy làmmiñ moom nit ki war na koo sàmm ci anam gi yëpp ni mu koy sàmme nag mooy lan mooy di fexey li ko ci suñu borom subhanahu wa taala digal muy di ko ci tudd ak di ko ci fàttaliku mu fexey di ko def waaye lépp loo xam ne lu mel ni ay caaxaan la lu mel ni loo xam ne wax ju amul benn njariñ la donte ne ay bàkkaar newu ci sax yooyu yëpp mu koy moytandiku ndax wax ju amul njariñ su ko nit ki toppee di ko def di ko baril bu yàggee mën na koo yóbbu ba ci loo xam ne amul ay loo xam ne bàkkaar rek la koy jural te loolu bu boobaa du doon da nga xam ne mooy la gën kon nit ki ni mu war a comporte woo ci diggante ak cëram boobu nga xam ne moo di aw làmmiñam mooy di ci fexey di jottali ndigalu suñu borom yi di ko ci sant waaye di ko ci fàttaliku waaye saa boo xamee ne amul lenn ci yooyu yoo xam ne mën na ko cee def bu demee ba wax ay caaxaan rek des ci wala wax wax ji amul njariñ rek des ci mu tee aw làmmiñam ndax kàddu dafa foor te saa boo xamee ne génn na doo doonul loo xam ne boroom mën naa dawaat dem di ko jàppi moo tax benn xakim waxoon ne law kaana al kalaamu fiddatan la kaana assumtu aw la kaana sukutu zahaban su fekkoon ne wax de dafa doon zahab mooy dafa doon fidda muy xaalis nañ xam ne noppi moom wurus la noppi moom wurus la kon noppi daa gën a gànjaru fuuf wax wax joo xam ne nag rawatina wax joo xam ne nag wax ju amul njariñ la ndax wax joo xam ne am na njariñ te mën naa jariñ jullit ñi loola moom dañuy sàkk bu baax a baax ñu koy wax ngir loola ak defaru mën na caa am kon foofu la bunt boobu yam ñu ngi tuub bu baax di jéggulu lu ci dëng rek ngeen xam ne ci suñu matadi la lu ci jub ñu sante ko suñu borom subhanahu wa taala di wax ne in uridu illa al islaha ma stata'tu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu